wa salaamun alal mursaliin asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu yéen téléspectateur Almouridiya TV niñ leen ko digee woon ñuy wax digee bor la ñëw nañ kon indil leen ab émission boo xam ne kon dañ ko jagleel téléspectateurs yi gën leen xamale ak lii di plateforme IPTV Almouridiya ak ni nga xam ne moom la téléspectateurs yi di def ba jot ci li nga xam ne moom mooy télé boobu ak jumtukaay yi nga xam ne moom la ñuy faral di jëfandikoo loolu lañ fas yéene waxtaane eh, tey ci ci nga xam ne moom mooy kon fii ci Almouridiya TV ci loolu nag ñu ci dalal ñaari invité moom mooy eh, Youssou Diop secretaire général adjoint ci daara Hizbut Tarqiyyah eh, ñu bàyyi ko mu nuyoog téléspectateurs yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërëjëf sëñ Mamadou Bokoum ñoo ngi am ak mbégte tey sant bu wér ci lii nga xam ne woo ngeen ñu ci ñu war ci waxtaan ak ñi nga xam ne soxal na leen ci biir réew mi ak ci bitim réew ndax tey jii ku ne xam ne ne communication ak information dafay loo xam ne sax ci ñenn ñi devoir la ci ñenn ñi euh, droit la muy loo xam ne kon euh, su ci Hizbut Tarqiyyah taxawee ci Al Mouridiyyah ngeen may ñu buntu ñu mën a wax ak waa réew mi wax ak waa bitim réew ci lii defe naa lu am solo la. jërë ngeen jëf. Ah, jërëjëf euh, beneen invité bi kon di Serigne Ibrahima euh, Keita nekk secretaire général ci daara Isbu Tarxiya moom tamit ñu ñu bàyyi ko mu nuyoog ko téléspectateurs yi. bisimilah. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu sëñ Mamadou Bokoum ñu ngi leen di nuyu di leen sant di nuyu mbooleem téléspectateur ak auditeurs yi nga xam ne ñu ngi ñuy suivre ci Almouridiya TV di ñu dégg tamit ci Almouridiya FM di. di sant yàlla bu baax ci jotaay bi nga xam ne dana doon occasion ci ñun euh, li nga xam ne mooy liggéey bu mag bi nga xam ne président promoteur bu Almouridiyyah indil na ko Sénégal ñu mën cee waxtaan def ci ay leeral ba kenn ku ci nekk xam outil boobu nees koy jëriñu kon ñoo ngi sant bu baax di fas yéene dugg ci liggéey boobu. jërë ngeen jëf. Ah, jërëjëf kon ñu yaakaar ne ak suñuy invité dineen indi ay leeral yi war kon ci li nga xam ne moom mooy plateforme IPTV bu Almouridiyyah ak ni nga xam ne daal téléspectateurs yi suñ ci jaaree dinañ mun a jot li nga xam ne kon moom mooy télévision boobu xam ngeen nag jamono ji li nekk li nga xam ne moom mooy actualité bi fukki fan ak juróom-ñaar ci weerum juin ba léegi réewum Sénégal jóge na kon ci mbirum analogie jëm ci mbirum numérique jamono ji nga xam ne kon ñoo ngi wax mbirum numérique euh, daara isbu tarxiya moom ak telem bi nga xam ne moom la yore di Almouridiya TV euh, moom dafa jël li nga xam ne moom mooy mbirum IP Euh, ci loolu rek dinañ ci waxtaan ak suñu invité li nga xam ne kon moom mooy TNT ak mbirum IPTV xam naa loolu Serigne Youssou Diop laa ci njëkk laaj mu indil ñu ay leeral ci mbir moom ndax téléspectateurs yi soxla nañ ko. jërëjëf sëñ Mohamed El Bokoum kon euh, ñu ngi nuyu ñëpp ci biir réew mi ak ci bitim réew di jiital kon ci suñuy kàddu di ñaanal Cheikh Sidil Mokhtar mi nga xam ne moo fi toogal Cheikhul Khadim yàlla suñu boroom guddal aw fanam wéral ay cëram ba li mu yéene te naal ko ci toolub Serigne Touba bi ak ci lislaam ji mu àggale ko te nu ànd ko moom sàkku ci ngërëmal Serigne Touba te am ko ci. TNT euh, effectivement 17 juin comme ni nga ko waxee fukki fan ak juróom-ñaar euh, dañ ne Sénégal jàll na ci TNT jóge ci analogie loolu ci tënk yu gàtt rek ndax waxtaan ci TNT sax du li ñu tax a jóg waaye mënoo ci ñàkk wax ndax ñun tamit. ni ko président promoteur bi leeralee dafa am une obligation citoyenne maanaam képp ku doon bokk ci réew mi mm-hmm. réew mi am benn défi maanaam loo xamante ne réew mi daf ko war a romb pour intérêt ñëpp képp kuy citoyen war nga cee doon dara looloo tax président promoteur bi daal di leeral ne loolu nga xam ne communauté internationale maanaam àdduna sépp ñoo maase sartal ko ci réew yëpp depuis 2006 ñuy wax le sommet de Genève 2006 ñu war a jóge ci analogique dem ci numérique lan moo waral loolu analogie dafay jël ay ressources yu bëri ci télécom dem ba réew mi mën naa sax waral réew yi daal di ndóol ndax télévision bu ne da koy jox benn fréquence kenn ku ne bu jëlee benn fréquence bu fi ñaar fukki télé amee ñaar fukki fréquence la fréquence yi dem ba mujj raar ba ku ñaanati sax bëgg am tele télé dootoo mën a am fréquence àdduna si gis ne fréquence yi du réew yee koy joxal seen bopp tey ji li tax boo nekkee Sénégal diggante Sénégal ak Mauritanie wala Sénégal ak euh, réew yi mu dendal du ñu am bruit maanaam tey jii te rajo yi ak télé yi du ñu du ñu du ñu mel ni lu yàqalante nga xam ne boo toog tolloo fii di dégg ko koo warta dégg dégg koo dégg li tee mu am dafa am union internationale des télécoms daf ko réglementé kooku àdduna si benn banqaas la ci Nations Unies Genève 2006 nag dañoo wax ne gis nañ ne fréquence yi léegi tàmbali naa xat te bis bu ñu jógee ci analogique jàll ci numérique dafay gën a yaatu ñu am li ñu wax nga xamante ne li ñu tuddee dividende numérique dinañ amaat lu bëri loo xam ne réew yi sax bu ñu leen ko joxee ñoom dinañ ci mën a liggéeyaat koom bu bëri boo xam ne ay xaalis la lu mel ni jaay licence ñuy def télécom wala yu demee noonu licence yooyu balaa ñu ko mën a joxe dañu amaat ay fréquence fréquence yu ñu libéré amaat ay fréquence yoo xam ne kon dinañ ko mën a jaay euh, mu jox mu soqali koomu réew mi euh, tey jii bu fekkee da dem ci numérique boo xoolee benn fréquence ñaar fukki dootul lu mel ni ñaar fukki télé mun nañ ko bokk te bu fekkente ne standard définition la bien sûr loolu ñaar fukki télé mën nañ ko bokk te Sénégal ñëpp standard lañ leen bàyyi ñu mën ko ñu mën a diffuser fi ñu toll nii kenn lañ may mu mën a def HD haute définition mooy RTS mm-hmm. ndax loolu fi ñu toll nii lu mel ni ñeent fukki fréquence Sénégal mun a weesu loolu su amee ñeen fukki fréquence te bu fekkente ne dafa am ñoo xamante ne euh, dañu bëgg jàll ci haute définition su bare woon rek dootu mënati ñeent fukk daanaka ñaar fukki télé sax dootu ko mën a mat te ñun fi ñu toll ni Al Mouridiyyah mi ngi jàllale ci haute définition bi nga xamante ne dafa xat mënta am ci TNT kon loolu mooy lan def nañu TNT ànd kooku ñëpp ngir un devoir citoyen mm-hmm. waaye li Al Mouridiyyah mën fi ñu toll ni wax dëgg yàlla Sénégal ñoo ngi leen ñaanal ñëpp ñu àndandoo takkuwaat na xam ne fii ñu si baax na waaye am na lu nekk suñu kanam te gis-gis boobu la promo président promoteur u Almouridiya teel a gis euh, yëgal ko kilifa yi yëpp xamal leen ne leen noo ngi ànd ak yéen ci TNT bi ngir rafetal ko muy devoir citoyen waaye bëgg nañ ñu àndandoo ñun ñëpp tamit fi télévision toll ci réew yu mag yi lu mel ni États-Unis wala lu mel ni euh, Royaume-Uni wala yu mel ni yenn réew yoo xam ne sax am na réew Europe yoo xam ne sax tolloo foofu lu mel ni IPTV ñun dañoo xëccu jàpp na mën nañ ko bu ci ñëpp jàppee kon defe naa ci tënk loolu laa ciy wax euh, sëñ Ibrahima xanaa dina mën a enrichir. <laughs> par rapport ak li nga xam ne moom waaw sëñ Keita ci ci ci mbir moomu mbirum TNT euh, ak euh, li nga xam ne moom mooy IPTV suñ xawee jàngat lenn ci li nga xam ne kon sëñ Youssou wax na ko. Mhm. dafa mel ne TNT dafa am foo xam ne foofu lañ ko tënk foofu la yem IPTV suñ ko doon jàngat xëy na moom moo gën a xaw a yaatu. waaw sëñ Mamadou Deme Euh, sëñ Youssou indi na li nga xam ne kon moo dugal Sénégal ci TNT euh, junj it li nga xam ne mooy euh, pexe maanaam possibilité yi nga xam ne moom la IPTV mën a maye waaye ngir gën a dugg ci ki yaatal ci fànn boobu mënees na ko misaal boo koy misaal danga naan TNT dafa dikk fekk fi benn forme télévision boo xam ne niñ ko baaxoo woon xam réseau hertzien la woon maanaam nit ki li ëpp ci dëkkuwaay yi ak kër yi ñi ca nekk bu ñu bëggoon seetaan seen télé dañuy ut antenne nga xam ne euh, euh, dañuy câbler seen antenne ci seen télévision ngir mën a jot programme benn télé. Mm-hmm. mu am ci jamono lu ñuy njëkkoon wax la première révolution de la télévision muy télévision satellite loolu it ñu bari xam nañ ko mooy euh, parabole mm-hmm. nga xam ne di nga jàpp lenn ci ay chaîne ci réew mi wala ci bitim réew waaye ba tey it foog nga ut ay antenne wala nga ut ay parabole teg ko ci sa kaw kër câble ko ci sa télévision ngir mën a jàpp lool TNT nag dafa ñëw indi forme bu bees boo xam ne dafa mel ni dafa indi te te te te te euh, li jiitu muy wàllu télévision sur hertzienne nga xam ne antenne la wala parabole euh, muy télévision satellitaire bi moom analogique la ko nit ñi doon jàppee léegi nag analogique li muy utiliser day bari day diis ni ko sëñ Youssou waxee TNT bi mu bi mu dikkee moom li muy indi mooy ak saafara ci loolu li muy indi ak saafara mooy euh, moom ab décodeur lay doon nga xam ne dana wuutu euh, dana wuutu antenne wuutu parabole waaye réseau hertzien bi lay utiliser ba tey moo tax tey jii boo koy xool ci baat nit ñi dañ naan TNT waaye TNT li muy firi mooy télévision numérique terrestre nga xam ne kon réseau hertzien bi terrestre réseau terrestre la kon même réseau bi la TNT du utiliser waaye bi yoon day jëlee signal yi ci forme analogique nga xam ne diisaay yi ci am yëpp da koy saafara di ko indi sous form numérique moo tax ñu naan télévision numérique terrestre nga xam ne ab décodeur rek lay doon mën laa permettre nga mën a am qualité numérique ba noppi it mën a may ñi nga xam ne ay diffuseur de contenu lañu lu ñu gën a yokk ci dayo ñoom ñëpp kenn ku ci nekk mën a am place ba tax mu mën a diffuser li mu bëgg a diffuser kon loolu mooy wàllu TNT kon ñuy sant bu baax ni ci senegal duggee waaye dafa am beneen solution technologique boo xam ne dafa gën a nekk à la pointe maanaam dafa gën a jiitu ci wàllu xarala ak ci wàllu xalaat ak ci wàllu doole muy IP ndax IP la TNT di def lépp IP mën na ko maanaam IP mooy télévision boo xam da nga koy seetaan par protocole internet moom it de ab décodeur ngay ut branché ko ci sa télé pour mën a jot service télévisuel yi nga xam ne diffuseur de contenu yi maanaam télévision yi moom la ñu kii waaye IP dafa yemut ci lool IP moom dalay may fépp fu internet am nga mën a seetaan télévision bu dee TNT moom réew mu ci nekk dañ laa définir sa stratégie de déploiement de la TNT dans un cadre national masalan tey li jiitu woon TNT télévision bu ne fa sa doole yem rek moom fa ngay mën a émettre ku am doole yi émettre Touba yem ca Touba nga émettre Touba yem ca Touba ku am doole yi émettre ak Kaolack ak Ndakaaru nga émettre Touba Kaolack Ndakaaru ku am doole yi émettre ci réew mi ba mu daj kàpp nga émettre ci réew mi ba mu daj kàpp waaye loolu néewoon na nga gis benn télévision ci biir réew mi fépp foo dem ci réew mi mën koo jàpp nga xam ne ñoom dañ daan cible par rapport ak zone d'importance yi kenn ku ci nekk di déployer sa télévision TNT nag moom dafa ñëw résoudre beneen problème ca loolu ndax day indi lu tax mbooleem télé yëpp dañuy yem képp ci mën a diffuser waaye ñoom ñëpp seen diffusion day daj réew mi kàpp nga xam ne kon fu doom mi réew mi nekk ci biir réew mi dana am possibilité mu jàpp mbooleem chaîne télévision yi ne ci réew kon ba tey boo koy xool cadre normatif biir réew mi IP nag ñi ne ci biir réew mi di doomi réew mi wala di ay ñeneen dikk ci biir réew mi ak ñii doomi réew mi nekk bitim réew wala képp keneen ku dul doomi réew mi nekk bitim réew fa nga ne bu amee internet rek moom IP may na la nga seetaan télévision bi nga xam ne mi ngi diffusé ci model boobu kon nga xam ne kon moo gën a yaatu ci doyo ba noppi ëpp doole ndax ni du seetaan ko ci télévision rek du ci doy nit mën na koo seetaan ci ordinateur nit mën na ko seetaan ci smartphone nit mën na koo seetaan ci tablette kon nga xam ne kon ëpp na ko doole ci wàllu dayoo ci barab yi ñu koy seetaanee waaye nag ëpp na ko it doole ci wàllu moyens yi nga xam ne moom la maye pour ñu mm-hmm. loolu dooroon rek benn tijji boo xam ne kon ñoo ngi ko doon amal ngir un peu euh, lii di décor bi ndax xam ngeen ne moo nekkoon actualité mais li ñu gën a soxal euh, li ñuy waxtaanee tey moom mooy kon mbirum plateforme IPTV bu Almouridia TV euh, ci loolu sax Serigne Diop laa laay laay li nga xam ne kon moom mooy télévision bii di Almouridia TV nekk ci mbirum IP. loo xam ne daara is Hizbut Tarqiyyah mun nañ ne togg bu yàgg la balaa muy yegg si fii tey waaw jërëjëf sëñ del effectivement togg bu yàgg la ndax xam nga nit ñun Hizbut Tarqiyyah moom moo sos télévision Al Mouridiyyah TV euh, Hizbut Tarqiyyah ci boppam li ko tax a jóg ci tàmbali gi ba fi mu yem du génn lenn mooy liggéeyal Serigne du génn def loo xamante ne day jëmale kam kanam lislaam ak njëriñal doomu aadama ci loo xam ne àndul ak genn genn loolu nag soo gisee ma tàmbalee ko xam nga mooy lan télévision juguñ ci rek ngir mel ni ut télévision wala xew na wala euh, euh, euh, jafe na moo tax almouridia isbu tarxiya taxawal ko déedéet dafa am liggéey boo xam ne ba isbu xee sosoo ba bisub tey dafa mës a doon li nga xam ne moo ko tax a jóg lu ëpp fanweeri at mi ngi nii isbu tarxiya nekk ci di ci liggéey mooy lan fexe ba dund ndono li nga xam ne Serigne Touba. jàngale na ko te liggéeyal ko lislaam liggéeyal ko toolu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam muy loo xamante ne fu jullit ne ci kaw suuf rek loolu war na laa soxal ndax sëñ Tuubaa li ko tax a jóg dafa universel boo gisee sax Hizbut Tarqiyyah waaxu daal di ne man de euh, li ma màndal mënta doon TNT li ma màndal mënta doon RCM daal di waaxu ne man damay dem ci IPTV lenn rek moo ko moo ko sabab message yu Serigne Touba ak jàngaleem Serigne Touba fii àdduna toll ci lëndëm fii àdduna toll ci jaaxle nit ñi képp ku xam li sëñ tubaa indi mën nga caa dimbali ko kon message yi sëñ tubaa àdduna sépp ko bokk dafa universel lu universel nag soo koy jàngale da ngay ut jumtuwaay boo xamante ne dafa planétaire maanaam day matale fu way nekk ci àdduna si mën koo jot su fekkoon almuridee tamit dafa jóg rek ne man wolof yi laay waxal wala waa Kajoor wala waa Bawol wala ñi nga xam ne ñooy africain yi ñu naan kii ñii ay panafricaniste lañu wala ñii ay ay dañu dañu dañu dañu dañu bëgg a promouvoir euh, culture wolof wala leneen ak déedéet loolu tax ñoo jóg sëñ Tuba li mu bind lépp bañ na ko ci làngal yaaram la ko bind ci arab di liggéeyal yonent bi muy loo xam ne jullit ñëpp ko bokk mais du lu local le mouridisme dafa dafa transcender dafa dafa jéggi frontière yi nga xam ne mooy frontière senegal loolu moo tax IPTV di jumtuwaay boo xamante ne gis nañ ne. àdduna sépp mën nañ ko jotandoo mooy aboutissement bi nga xamante ne maanaam tey jii dañoo dox ba si ci mais li lay wan ne processus la boo xamante ne ci histoire foofu lañ jaar mooy tey jii boo xoolee daara ji ba mu sosoo rek 1975 ba 1981 81 euh, ba ñu amee daara tam li nañ def liggéeyu traduction bu mag ci jëm li mbindum Sëñ Tuubaa di ko traduire ci français di ko traduire ci anglais di ko traduire ci arabe loolu mooy premier travaux travaux yooyu ci jamono Sëñ Abdou Lahad Mbacké ko yàlla suñu borom yokk ay leer te taas ñu ci barkeem nga xam ne moom mbooloom Hizbut Tarqiyyah suñ koy wax mi ngi sosoo ci moom ci xilaafaam loolu traduction boobu rek liggéeyu yaatal bëgg ñeneen ñi déggul wolof wala dégguñu arab mën a jote ci njàngaleem Sëñ Tuubaa daan nañ ko def ci langue yu bari loolu dim ba pare ñu koy tiiree di ko di ko di ko yaatal di def li nga xam ne loolu di màgg ba 1988 xam-xam ak xarala daay toll ci li ñu wax télématique télématique euh, ñi ñi nekk ni tey di def technologie mën nañu ko bañ a xam ba ci yéen journalistes yi sax mën ngeen ko bañ a xam mais télématique 1988 ñun bi ñu koy am boobu waa Sonatel xam nañ ko ndax adduna si boobu internet yaatoogul xamaguñu ko télématique lañ ñun créé li ñu tuddee le guide euh, le guide télématique du Mouride Euh, Hizbut Tarqiyyah moo ko jëkk créé boobu tax daayira des étudiants mourides la tudd ndax 1991 92 Cheikh Salim Mbacké bi mu dikkee moo ko tuddee Hizbut Tarqiyyah mais mbooloo mi 1988 créé na li ñuy wax le guide télématique du du Mouride Cheikh Tidiane Mbaye à l'époque moo nekkoon euh, directeur général euh, Sonatel ak euh, le prix monsieur Maguette Diouf nekkoon le ministre de la modernisation de de l' état ci jamono yooyu mais ñoom ñëpp ñëw nañu xool si loolu parce que dañ ne Sénégal musta am lii am ay ay ñoo xam ne waa doomi réew mi lañu di ay étudiants ñu ci ëpp ñenn ñi door génn université di liggéey ñu ñu ñu lii le guide télématique du Mouride mais pourquoi parce que dañ jàpp ne yoonu Mouride ñëpp ko war a xam. loolu donc en français en anglais ñëpp dañ ko doon def mais loolu projet boobu sax li ko tardee tàddeeloon Sonatel moom moom manqué woon ay jumtuwaay te reconnaître woon nañ ko ndax da boobu ñu dugg ñu dugg bëgg a bëgg a bëgg a jot ci an euh, ci guide télématique bi dafa mel ni ñun ñoo war a ci à leur parce que système de tarification bi Sonatel li jën di ko woon ñu dox dox dox loolu di dem ba 1995 ñu créé rajo 1998 ñu créé le premier portail web sur le Mouridine ba tey jii 2011 2012 ñu ne IPTV kon xarala IPTV dafa doon xarala yi gën a jën gën a matale ci jamono pour ñu créer ci euh, télévision boo xamante ne àdduna sépp dinañ xam ne la mouridisme dafa doon un message universel te li ñu soxal mooy l'unité de l'islam dans la diversité li ñu soxal mooy jullit ñëpp daal di xam ne lañu sa sallallahu alayhi wasallam jàngale woon ci arafat mooy benn jullit bu mu xool moromam boo xam ne dina wax laa ilaha illallah muhammadu rasulullah mu jàpp ne war naa mën a noonu moom ku xool loolu xam ne njàngale moomu fi ñu toll nii far na gay raaf na jullit ñi rek ñoo jàkkaarloo di xeex ci seen biir donc loolu ci tënk la donc sëñ Ibrahima Keita li mu wax dafa am solo def na benn parade bu yaatu leeral mais TNT ak IPTV mi ngi mel ni tey nga ni yàlla ak yaali dafa sore ndax fi ñu toll nii wax bu yemoon ci couverture globale à travers le monde nga mën a wax bu yemoon ci li muy wax ne euh, sa téléphone képp boo toogee mën a seetaan euh, euh, almouridiya soo nekkee sa biir oto mën na seetaan almouridiya waaye yow boo toogoon ak sa njaboot seetaan télévision télévision mu mel ni programme bi bi ngeen di seetaan mën naa am yow arrangé na la yow mi wayjur wi te arrangé wul sa doom mën na am arrangé na ku góor gi waaye arrangé wul ku jigéen gi loolu yow tey ji mënoo ci dara da ngay toog di xaar li nga soxla loo soxlawul tamit fekk la ci waaw waaw foofu xam naa dinañ ñëwaat ci ci ci programme bi balaa ñu empiser kon ci ci yeneen question yi. <laughs> waaye foofu rek li ma la bëggoon mooy. te mhm. TNT problème boobu moo am IPTV da ko lijjanti sa doom sa soxna yii ñëpp kenn ku ne mën naa seetaan li mu soxla te benn télé bi moo koy joxe kon kenn ku ci ne li nga soxla la lay jox. Euh, kon euh, sëriñ Ibrahima Keita ci ci mbirum almouridia boobu kon benn besoin universel la woon boo xam ne. message wu l'islam moom moo ko tax a jóg ci li nga xam ne moom mooy création boobu. waaw ndax loolu danga koy il faut nga renvoyer ko tuuti ci turu almuridiyya ci boppam ak organisation bi nga xam ne ñoo ko ñoo ko sos muy isbu tarxiya ndax almuridiyya boo déggee tur wi rek sa xel dana dem ci ki nga xam ne mooy cheikhul xadim cheikh ahmad bamba fondateur du mouridisme te kooku turub xaadimu rasul ñi nga xam ne ci la gën a siiwee turub liggéeykatub bi mu nom la xam ne da ko da ko da ko incarné pour mën a jàllale euh, benn benn benn ndono culturel boo xam ne ma ko jëlee donnoo ko ci rasulullahi sallallahu taala alayhi wa sallam kon suñu yonent boobu bi muy dikk dafa indaale message universel ni ko sëñ su waxee kon àdduna bépp la dikkal loolu képp koo xam ne am nga tawféex di liggéey ci boobu message jumtukaay bu mën a wax ak ñëpp nga war a wut looloo sabab ki nga xam ne mooy Serigne Atou Diagne di président promoteur Almouridiyyah xam ne dañoo war a jañ suñu bopp ci itte ju tool noonu moo tax mu ne kon nañu réfléchir ci dispositif boo xam ne dana permettre ñu mën a communiquer avec le monde entier loolu mu ni muy mën a nekkee mooy dañuy seet les langues internationales yi nga xam ne li ëpp ci àdduna bi boo ci waxee ñu dégg la ñu fexe ba am jumtukaay boo xam ne langue internationale yëpp danañ ko mën a utiliser boo xoolee plateforme la Almouridiyyah am du simple télévision différence entre plateforme ak simple télévision mooy plateforme day accueillir ay multitude de télévision de chaînes de télévision plateforme nag bi nga xam ne moom la Almouridiyyah am ñu leeral ko Sénégal yépp xam ko day plateforme boo xam ne tey jii buñ ci jubóowoon mbooleem patron de presse yi nekk Sénégal kenn ku ci nekk sa télévision mun nañ ko intégré ci biir plateforme Almouridiyyah mu nekk une plateforme national nga xam ni solution technologique bi almouridiyyah indi maye na ko leneen li ci des mooy yemul rek ci mën a diffuser ay chaînes en live maanaam en direct comme nit ñi def émission mu koy projeté en direct mm. mais plateforme IPTV day permettre lu wuteeg chaînes yi diffuser en direct mu créer ay canaux yoo xam ne VOD la vidéo à la demande loolu ni sëñ Youssou wax sànq lay indiwaat nit ki day mujj doon directeur de programme bu boppam nga xam ne li njëkkoon ci li ñu xamoon ci télévision da ngay toog ñu lay imposer ay programme waaye léegi yow yaay seet waxtu wi nga xamee ne moom nga am jot li nga bëgg seetaan nga dem fa mu nekk nga seetaan lool nga xam ne kon loolu dana jur njëriñ lu rëy rëy ci askan bi te boo xoolee réew yi nga xam ne tey ñoo gën a avancé ci àdduna bi lu mel ni États-Unis lu mel ni Canada lu mel ni Royaume-Uni ak li ëpp ci réew yi gën a développé ci Europe tey seen tànk ñi ngi ko teg ci télévision bii ñuy wax IPTV lu ko li ko waral mooy actuellement développement wu télécommunication développement wu technologie dafa jur ay comportement yu bees ci nit ñi nit ñi dañu mobile kenn toogatul nga xam ne léegi aajootul ci nga xaar ba am jotu dellu si sa kër toog sa saal pour seetaan télé ndax mën nga di liggéey wala nekk ci yoon wala nekk fi barab sa xel nekk ci lu la soxal luy dox ci benn télévision waaye waxtu la soobee ak li nga xam ne moom ci seetaan ko ci télévision IPTV may na la nga mën koo am ci bu fekkee programme bi ngay seetaan mi ngi diffusé ci IPTV. Mm. Euh, ci ci loolu sax xam naa dañuy dem ci ak euh, waa régie ñëw kon ci pexe yi nga xam ne donc soo ko jaaree rek di nga mën a seetaan kon li nga xam ne moom mooy Almouridiyyah TV ak jumtukaay yi nga xam ne moom la ñu war a euh, jëfandikoo ci loolu dañ ci teewlu rek ki nga xam ne moom mooy Alioune Seck nekk ci direction technique bu Almouridiyyah TV ñu taaxirlu kon seetaan mbir moomu après dellu siwaat Euh, li nga xam ne nag moom la almouride bëgg a dikk ak yéen ci wàllu euh, IPTV IPTV moom bu koy wax mooy télévision boo xam ne dina jaar ci internet ba tax na kon li nga xam ne tax créé nañ ko mooy télévision almouride IPTV bokk na ci télévision yi nga xam ne almouride moo ko njëkk a créé ci Sénégal ba tax na kon fexe na ba doon def ko muy uti boo xam ne uti planétaire la maanaam fu waaye ni mën a nekk ci àdduna bi dana mën a seetaan. waaw almouride nag euh, support yi nga xam ne moom lañ ko mën a seetaanee bari na ndax waajal nañ ko jumtukaay la boo xam ne waajal nañ ko noo xam ne fu fi waay mën a nekk ak sipport boo mën a am danga ko mën a seetaan. kon yooyu bokk na ci galaxi Galaxy buñ ñu koy wax <coughs> Android la nga xam ne kon boo amee LG boo amee Samsung soo amee euh, Sony. yooyu yëpp boo ko amee di nga mën a télécharger euh, application bi soo ñëwee ci iOS tam iOS kon ni ñu ko baaxoon mooy iPhone lay doon wala mu nekk tablette boo xam ne bi tam même système bi lay doon boo xam ne di nga ci mën a euh, am bu dee ci wàllu ordinateur tamit soo duggee itam boo defee 3w almouridiyyah point com di mën a seetaan li nga xam ne moom mooy télé bi def nañ ci njàppandal yoo xam ne ba fi ñu toll nit di wax ak yéen def nañ ko muy euh, nit ki su bëggee seetaan ci période bi nga xam ne bëgg na nit ñi xam li nga xam ne moom lañ indi tax na ñu def ay firi nga xam ne ku bëgg a seetaan doo fay dara dinga mën a seetaan Al Mouridiyyah nekk noonu kon boo amee tam lu man ni euh, box yi box tamit ay jumtukaay yu yaatu la yoo xam ne lépp technologie bi waajal na ko noo xam ne fi fu mën a nekk dana ko mën a seetaan nga xam ne tey jii soo jëloon tey lu ma ne exemple euh, boîte bi nga xam ne moom lañ leen wan bokk na ci boîte yi nga xam ne ku ko am da nga ci fekk application Al Mouridiyyah boo xam ne da nga ko mën a seetaan nga xam ne kon loolu dana la permettre nga mën a am sa télévision mu ànd ak connexion yi nga xam ne wala ànd ak yëpp nga xam ne am na connexion HDMI am na connexion composite ak alimentation bi nga xam ne moom moo koy taal nga xam ne du jël sax lu bari ci courant loolu bokk na ci euh, euh, jëfandikukaay yi nga xam ne ku ko am danga ko mën a seetaan naka noonu tam Google TV yooyu tam bokk na ci box yi ak lu mel ni tamit box iOS tam am na Apple Apple TV yooyu yëpp ay jumtukaay la yoo xam ne soo ko amee di nga ci mën a seetaan almourdiya ginnaaw bu loolu jàllee nag ñu del si nag ci képp koo xam ne kii bëgg nga seetaan almourdiya naka ngay def ba seetaan ko kon am na li ñuy wax ay store mooy ay magasin de téléchargement yoo xam ne am na ci serveur yi nga xam ne képp koo xam ne kii defar nga sa application bëgg nit ñi jëfandikoo ko boo ko defanee ba noppi fokk nga dugal ko foofu ba tax képp koo xam ne kii am na euh, appareil bëgg a seetaan almourdiya su defee euh, tapé almouride ci store bi rek da koy génneel icône bi mu téléchargé ko nga xam ne kon loolu moom jumtukaay yi nga xam ne waxoon nañ leen ko yëpp boo ci jël bu nekk boo demee ci euh, lu mel ni yooyu si dañ dañ def lu mel ni market store nga xam ne boo defee almouride da nga mën a gis icône bi mën koo téléchargé téléchargement bi tam bu jàllee kon dana soxlawoo tam na nga bëgg seetaan loolu nag bokk na ci euh, jumtukaay yi nga xam ne tam defar nañ ko nga xam ne kon waajal nañ nag site boo xam ne ni ñu ko waxee woon sànq soo demee ci sa ordinateur ndax soo wàccee télé euh, application bi ba pare dana la laaj euh, boo cliquer ci euh, icône bi dana la laaj sa adresse email ak sa mot de kon fi mu ne da am sa adresse email dugal rek dugal sa mot de passe mu mën laa jox télé bi déedéet donc loolu soo ko defee ba noppi dana la nag renvoyé ndax boo xoolee application bi ci suuf di nga gis ñu def 3w almouridiyyah point com kon loolu mooy tegtal nit ki ne moom bu defee téléchargement ba noppi moom dina ko renvoyé ci almouridiyyah point com nga xam ne kon fokk mu am lu mel ni ordinateur bu defee bu bu tàppee 3w almouridiyyah point com mu mu indil ko site bi. dana ko ubbil page bi nga xam ne kon am na fu ñu def rubrique m'inscrire soo cliquer foofu dana la indil benn page d'identification dana indil benn page boo xam ne dina la wan ne boo bëggee jaar am na beneen fenêtre boo xam ne def nañ ko ngir wan ne actuellement ni li dañ ko maye nga xam ne kon deuxième page da ngay demaat euh, ci fenêtre bi ñu bi ñu bind free boo duggee ci fenêtre bi nag foofu dana soxla nit ki identifié wu maanaam wax nit ki moom mooy kan ndax adresse email dana la ko laaj laaj la mot de passe nga confirmer ko mu laaj la dëkk bi nga sa tur ak sa sant boo remplir page bi yëpp. dana am benn code bu mu lay indil boo xam ne dana ñëw ci suuf nga xam ne code su juróomi chiffre la dana la wax nga tàppe ko ci kaw. nga xam ne loolu boo ko tàppee ba noppi nag moo lay permettre nga mën a valider sa compte nga daal di ñëw nag ci page bi ci suuf ci fenêtre bu zone bi. boo cliquer foofu mu wane na new sa compte baax na loolu nag ginnaaw boo ko defee ba pare dana dellu siwaat nag ci li nga xam ne mooy support bi nga xam ne moom nga muy euh, amaana muy iPhone wa ilaa muy Galaxy wa muy sa euh, box yi nga xam ne waxoon nañ ko yi nga xam ne mooy ànd ak télévision yi nga dugal sa sa email dugal sa mot de mu dugal la directement ci li nga xam ne moom mooy application bi icône bi gannaaw boo duggee nag dana la indil li nga xam ne mooy euh, ñetti chaîne Al Mouridiyyah yi nga xam ne waajal nañ ko dolliwaat ci yeneen seen yi nga xam ne dina mën a yóbbaale ñi nga xam ne tey jii soo demoon tey fu mel ni bitim réew mu nekk loo xam ne da mën a jëfandikoo euh, euh, outil bi ndax waajal nañ ci yeneen seen yoo xam ne loolu lépp ngir mu doon loo xam ne dana tax nit ñi mën a euh, gën a jokkaloog li nga xam ne moom mooy ay murid al muridiyya kon jot nañoo teewlu leeral yi nga xam ne kon euh, technicien bi di Serigne As euh, Alioune Seck indi na ko kon ci ni nga xam ne moom mooy jumtukaay yi nga xam ne moom la téléspectateur mun a utiliser ba jot kon ci li nga xam ne moom mooy mbirum almouridia boobu. Euh, xam naa dañuy ñëw rek ci li nga xam ne moom mooy question bu mujj bi balaa ñuy tëjeek suñuy invité ñëw ci un peu euh, ndax tele bu nekk day am ligne éditoriale am loo xam ne moom lañ koy euh, ràññatle sëriñ Youssou Diop ci ci ci mbir moomu ligne éditoriale bi nga xam ne moom la Al Mouridiyyah TV jagleel lii di téléspectateur am. waaw jërëjëf sëñ Mamadou Bokoum waaw ligne éditoriale bi moom damay delluwaat rek ci kàddu yoo xamante ne président promoteur bi. bi muy jóg ndax ku xam fi nga jëm boo jógee yow doo jaaxle ci nan ngay leeral bu fekkee utoo tele pour ut télé rek mais da nga ut télé mu ñëw fekk si objectif boo xam ne danga nga ko amoon di ko def télé bi war a ñëw doon aw fas sal loo xamante ne da nga koy war jëmee ko ci li nga xam ne moo la tax a jóg kon li la tax a jóg war nga koy wax euh, tey jii yoonu murit dafa war a marquer sa présence au rendez-vous mondial des échanges adduna bi dañoo toll ci jamono joo xamante ne nit ñi échange culturel dafa am kenn ku ne la nga am ci lu baax ci xam-xam ci culture ci jikko ak ci lépp loo xamante ne ndono la da nga koy dimbalante ak sa morom loolu mooy rendez-vous mondial ku amul dara nag lu ñu la jox nga jël moo waral jafe-jafe yi ñu am ci école bi jafe-jafe yi ñu am ci xale yi jafe-jafe yi ñu am ci jigéen ñi ba yenn concept wala yenn notion yoo xamante ne c'est des notions étrangères ba pare amul culture amul valeur loolu daal di ñoom dem ba bëgg a féréwlu suñuy xale féréwlu suñuy euh, gone te boo amul dara nit ñi jox la dara mooy roy loo xamul toppadoo ko yabal lu ay may moo tax tey jii la mouridisme doit être présent au rendez-vous pour wane ne jullit ñëpp benn lañu loolu mooy jàngaleem Sëñ Tuubaa jullit buy noonoo moromam loolu bokkul ci njàngaleem Sëñ wa loolu al muridiyya loolu bokk na ci li ko gën a ñor waaye almouridiya c'est pas une télé de voilà du affaire u jàpp ne waxi diine rek ngay wax parce que nit ñi ñoo ngi ci àdduna di fi dundandoo di am ay préoccupations yoo xam ne yii ci environnement la jëm yii ci santé wér-gu-yaram la jëm yii ci sécurité la jëm yii ci éducation la jëm et cetera et cetera loolu lépp tey jii soxal na almouridiya moo tax tey jii euh, bu ñu nee yoon lu tax du ngeen teg làmb lu tax du ngeen teg football mais ñun critiqué wuñu critiqué wuñu télé buy teg loolu waaye nañ xam ne. ginnaaw am na ñu koy def te mun ko lool ni ko président promoteur waxee woon mais est-ce que ñun du ñu def leneen li nga xamante sentir nañ ne manqué na ci ci ci ci paysage médiatique bi ñu indi ko muy enrichissement ñeneen ñi nga xamante ne mën nañu di yendoo fecc ak fanaane ko mën nañ cee wéy defaaleel ñu ko nu lii nga xamante nag dañ ko dañoo gis ne waxtu wu dem dem na te dootul dellu si te wóor nañ ne dinañ jàkkaarloo suñu borom. te lépp loo xam ne bëgguñu ko yóbbu fa moom mu mel ni dee fekk ñu ci bëgguñu cee ne sañ nañu xool loo xam ne moo gën a dal suñu xel ci suñu njaboot ak ci suñu bopp ak ci réew mi ñu góorgóorlu ci keneen def ci leneen ñu boole lépp muy le paysage médiatique Sénégal. Mm-hmm. Euh, ci mbir moomu Ibrahima Keita lan nga ciy yokk balaa ñuy tàggatoo. waaw xanaa mm, di gën a sant rek ci xëy na leeral te xam ne euh, bu ñu bëggoon wax dëgg dëgg dëgg rek mbooleem li nga xam ne tey jii plateforme bi maye na ko yaakaar naa ay émission émission émission la ndax bare na lool lu ñu nit ñiy woo di laajte ñu ñuy abonné di laajte euh, lan ak lan la di laajte ñu leen di leeral ne euh, ay chaîne de télévision yu bare la euh, ba mën a accueillir sax yu ne ci biir réew mi yu ne biir Afrique ak yu ne ci birim réew jëm ci Europe wala Amérique ak it yemul rek nag ci doon télé ndax plateforme bi daa intégré waale rajo mën a accueillir tamit mbooleem rajo yi ne ci réew mi kon loolu jaadu na nit ñi xam ko waaye plateforme bi it du tele ak rajo rek am na it site web boo xam ne mooy www.almouridiyyah.com képp koo xam ne am nga accès internet ñi ngi lay ñaan nga dem ci site ba bu ko defee mbooleem information yi nga xam ne itteel na la ci nga xam ko ci plateforme boobu li mu maye di nga ko fekk ci site ba boo amee leneen loo xam ne it itteewu nga ko koo gis ci site ba nga woote ci 33 975 10 29 nga xam ne euh, mbooleem information boo soxla di nga fa fekk ay opérateurs yoo xam ne danañ ko mën a mettre à ta disposition kon yaakaar naa loolu bu ñu ko ci dolloo rek li sëñ Youssou wax defe naa tënk na wax ji kon Almouridiyyah mi ngi fi doomi réew mi la fi nekkal Sénégal la fi nekkal technologie la boo xam ne mën na rivaliser ak technologie à la point yi nekk à la pointe ci réew mépp ci réew yëpp loolu nag gëm ne sunu borom mi nekk amerique nekk Europe moo nekk Afrique te gënul nekk feneen bàyyi suñu réew mi di senegal kon fu mu def lu ne war na ko mën a def ci réew mi doomi réew mi wane ci xarala gu tax keneen ku taxaw am ndam ci lu mel noonu doomi réew mi it mën a taxaw am ndam ci lu mel noonu kon loolu dab nañu ñu ciy sant yàlla sunu borom di xamalaat waa réew mépp ne senegal la ko moom doomi réew mépp ko bokk kon na ko ñëpp jëriñu jërë ngeen jëf. Mhm. ñuy jaajëfal kon suñu ñaari invité yi nga xam ne kon lañ doon dalal tey di Serigne Youssou Diop ak Serigne Ibrahima Keita eh, nekk kon ci direction daara Hizbut Tarqiyyah ñuy yaakaar ne rek li nga xam ne kon jot nañ ko waxtaanee fii téléspectateurs yi jëree nañ ci njëriñ. gën a xam li nga xam ne moom mooy plateforme euh, almouridi IPTV bu almouridia TV ak yoon yi nga xam ne daal suñ ci jaaree mun nañ abone wala seetaan li nga xam ne moom mooy télévision bi doon pàcc boo xam ne kon euh, programme almouridia indiloon na leen ko tey euh, gën ci leeral lekk li nga xam ne moom mooy mbirum plateforme IPTV ñuy jox kon rendez-vous suñuy téléspectateur xëy na ci beneen yoon ak beneen waxtaan ba léegi bu soxal li nga xam ne moom mooy dundinu télévision almouridia TV jaa ngeen jëf ñu yend ak jàmm Ahmad